aju guddi gi kon maa ngi koy remercier bu baax moom Wally Seck ma ñëw rekk ci ni ngeen déggee coow li parce que nag boobaak léegi gars yi dañuy nettali manaar manaar naar yaa ngi gis naa ci biir presse bi parce que dañu ma woolu ma ñëw ñu ne ma dañu lay topp war laa déglu audition parce que da nga def diffamation ma ne leen maa ngi déglu ñu ne ma da nga ci teg ay injure publique maanaam danga nga am ñoo xotti seen war ma saaga leen ma ne leen aha ñu ne nañu tàmbali ma ne leen bismillah ñu ne ma dafa am ay kàddu yoo yëkkati ci conférence de presse premier ministre yëkkati ay chiffres wax ko nga ne chiffres yi du dëgg ndax dangay ngay dëggal kàddu yooyu ma ne leen ca sama conférence de presse tontu naa président parti PASTEF président parti PASTEF nee na données économiques ak budgétaires yi Sénégal di jëfandikoo ci at yu bari dañ cee roof njublan man ma delluwaat wax Ousmane Sonko ne ko li nga wax waxoo dëgg ay kàcca ma yëkkati ay kàddu la ma waxoon lañu ma doon laaj teggiwu ma ci virgule lépp lu nga xam ne maa ko waxoon ci conférence de presse bi fii ma waxaat leen ko ñu dégg ko lépp lu ma yëkkati woon ci kàddu ci conférence de presse bi fii man Bougane je l'assume je l'ai assumé et gis naa ci biir presse bi ay wàll yu ngeen bind ci biir audition bi amu ci lenn loo xam ne man Bougane yox-yoxi naa ci wala ma dellu ci ginnaaw amul bi gën a neex ñu ne ma mais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 damay ñëw loxo yi neen ma génnee leen rapport yi tegal leen ne leen rapport yii moo weddi Ousmane Sonko mais ma ma dem ci beneen wàll ma ne leen mais yéen da ngeen ne dama diffamé mais man bëgg naa xam kan moo ma porté plainte du na ngeen ne dama diffamé ñu ne waaw ma ne leen yéen nee ngeen dama diffamé ñu ne waaw ma ne leen dama bëgg ngeen wax ma kan moo ma porté plainte parce que pour diffamation am il faut plainte am ñu ne ma non kenn porté wu la ma ne procureur dafa autosaisir ñu ne non procureur autosaisir ma ne waa baax ñu ne mais dañu bëgg nga wax ñu lan moo tax yow ngay ñàkke war ma premier ministre ma ne ko man ñàkkew ma wor ma président parti pastef man waxuma ak premier ministre man président parti pastef laay wax ma ne ko yéen ñi jàkkaarloog man moom Ousmane Sonko ci conférence de presse bi ma koy tontu nee na Macky Sall day fen Macky Sall moo doon président de la République du Sénégal moom Ousmane Sonko sañ na wax Macky Sall day fen mais Bougane waru koo wax ni ko yow mii da ngay fen waaye waaye nañ ñu wax ñun ci ban réew lañ nekk ma ne leen yéen war ngeen comprendre ne man Bougane man du ma ragal est-ce que danga am problème ak Ousmane Sonko ma ne ko benn problème rek lañ ñu am mu ne ma lan la ma ne ko dëgg dëgg rek la am comme problème amuñu beneen problème bu tegoo ci dëgg daal nangu sàmm kàddoom du ñu am benn problème waaye bu fekkee ne heure buy wax ak nit ñi mu ngi teg marto ak di dóor linjaa fu mu dóoree linjaa 11 heures midi ma teggi linjaa gi parce que nag ñun Sénégal moo ñu ñor amuñu beneen nationalité amuñu leneen feneen kon réew mii nga xam ne moom la ñu jox suñu lépp duñu nangu kenn di ko fooye duñu nangu kenn di ko yàq yegg nañu ba ci ne ma mais yow dégg nañu ay fonctionnaires yoo xam ne tudd nga leen mais fonctionnaire yooyu est-ce que xam nga ne li nga dal ci seen kaw war na mën a tax yoon dal ci sa kaw ma ne ko déedéet président parti PASTEF nee na données économiques ak budgétaires yu Sénégal dañ ko falsifié ci at yu yàgg ma ne ko Cheikh Diba mi tax ngay wax moo doon directeur de la programmation budgétaire ma ne ko Cheikh Diba mi tax ngay wax moom moo demoon jiite ji mission FMI yi nga xam ne ñoom ñoo doon négocier le budget triennal d'investissement kon bu fekkee ne bu ñu demee ci tubaab yi chiffres ya ñu leen di yóbbul baaxul képp ku ca àndoon yow bokk nga ci njublan ñu ne ma mais yow est-ce que xam nga ne kàddu yi ngay yëkkati bi ko jëmee ci Sénégal day yàq darajay Sénégal bitim réew ma leen ki ko njëkk yàq mooy ki ne suñu chiffres yi dañ koo falsifié kon kàddu yi ñu fa yëkkati kàddu yu leer la kàddu la yoo xam ne amul benn diffamation waaye amul benn kàddu gu tegginuwul gu ñu teg ci kenn muy injure publique bi ñu paree ñu ñëw indil ma këyit bi ci samay kanamu avocat mooy PV bi ma signé ko gis naa xam nga yenn saa yi damay am suñu mbokk journaliste yu rataxle ñu ne Bougane signé wul PV d'audition bi signé naa ko parce que la ñu ca bind maa ko wax lépp laa signé parce que booba dañ ne dañ may toppe diffamation ak injure mu bind signé ñu pare 18h30 <coughs> ñu téye ñu fa téye ñu fa ba 22 heures moins hmm. doog a ñëw ne ñu dama lay notifier sa garde à vue maanaam dañu lay denc ma ne ko aha man sëñ bi préparé wu naa de. mu ne ma maa ngi la gis sànq ba tey yaa ngi bind man ne ko dama jël feuille boo xam ne numéro yi am importance ci man laa ci doon bind ci kayit parce que xam naa ne kenn du ma may ma am téléphone. ma ne ko gis nga ba ma yegsee ba léegi ci loolu laa nekk kon man pare naa ci éventualité yëpp ñu jox ma document garde à bi. lañ ma doon toppe di diffamation ak injure ma xool kayit bi